jërë ngeen jëf gan gi ñu gane si ba noppi yamale ñibbi ak ko ray ba ray lu bari ci réew mi di coronavirus bi l'observateur nee nañu tey jii la fi def atum yàlla ubbil yéenekaay bi bés ni tey ñaari fan ci yoru mars 2020 ci la ñu njëkk a dégg ko coronavirus ci réew mi boobaak léegi fi ñu jaar ak moom fépp yéenekaay bi di l'observateur xëy na fa jaaraat ak ñun ba jaare fa jox kàddu gi professeur Moussa Seydi njiital service maladie infectieuse ak tropicale ci hôpital Fann ñi ñu dénk wàllu wér gu gi ci réew mi taxawaay bi ñu am ci mbas mi fa ñu doxleeg fa ñu amee ay rëq-rëq lépp l'observateur dikkaat na ci ba ci coowal deuxième wàgg gi ñëw fekk wàgg bu njëkk bi lottal askan wi rawatina ci wàllu koom-koom gi lu nekk l'observateur nee nañu dund nañu ko ci réew mi loolee ci la xëy bi dañu fàttali ne at wopp ji def na ko ci réew mi ba faat fi lu toll ci juróom-ñetti téeméeri doomi aadama ak juróom-ñetti fukk boobee ba tey askanu Sénégal ñoo ngi ci jaaxle ak njàqare gu rëy la tribune nañu coronavirus bàjjo bi def na fi atum yàlla waaye def na fit ay dégâts yu dul jeex ak i loraange suñu réew di Sénégal le bind na ci ñàkk yi di vaccin yi ca la wékk yaakaar ngir mën a xeex ak feebar bi Sud Quotidien mel ni ku naan bi ni muy demee mi genn wet dafa am ci anam yi ñuy ñàkkee nit ñi Walf Quotidien feelu ko ne ko boole ci kit borom darajeeg borom doole yi ci di a soxla te seen loxo jotul nataal yu ñuy seen Macky Sall Mbow Aïssata Tall Sall ba ci Souleymane Ndéné Ndiaye ku nekk ci ñoom wokk yërëm joxe përëgam ñu ko cee ñàkkal Walf Quotidien boole ci di tëgg gémmiñam di woote wàllu ci ni kilifa yi mi ngar daajoo vaccin yi étudiant en année clinique yi ñoom ñoo ngi yuuxu wàllu ci libération nee nañu ci jamono ji ñuy ñàkkee maire yi ak politiciens yi ci réew mi ñoom kenn boolewu leen ci te bés bu ñu xëyee ñoo ngi en contact ak malade yi heure bu ñu demee l'hôpital ne dañoo bëgg ñu ñàkk leen li ñu leen di wax moo di fonctionnaire yi ci administration bi ñoom la ñu fi dencal ñàkk yi bu ko defee ñoom it ñu wëlbati ko toppaat seen i tànk Ousmane Sonko ndax dana dëgg ab tànkam ca bureau gis ba laaj la buy sampe ci xët mu njëkk Vox Populi journal bi xamal ñu ne moom jiital parti Pastef di Ousmane Sonko ginnaaw bi ñu dindee immunité parlementaire am keroog àjjuma ci assemblée nationale gis bu huitième cabinet bi war a lijjanti coowal mbës mi dox digganteem ak Adji Sarr convoqué na ko suba ci àllarba ji ci yor yor fàttali ñu ne Ousmane Sonko neewoon na du wujji ndax yoon wi gaañi jaar ba dindi immunité parlementaire am tegeewul ci yoon Le Quotidien nañu en tout cas convoqué nañu ko suba ci yor yor ca um ñu ko teg Le Quotidien nañu yaa ngay démarré nag ba joo mu di bras de fer ba tàmbali na anki dina kay seetlu ne li xew xeeñul neex ndax ñoo ngi teg loxo ñooñu Ousmane Sonko yi ñoo ngi leen di teg loxo moom ci jëmi boppam it convoqué nañu ko ca tribunal ca bureau juge ba suba ci àllarba ji a gudd te libération nañu maître Khouraychi Ba bokk ci avocat yi Ousmane Sonko yi moom la commandant Abdou Mbeng bu section recherche woo ba mu ñëw mu jébbal ko convocation Ousmane Sonko jox ko këyit ne ko desarcel avocat bi ne gendarme bi danaa jël convocation bi ndax waaye duma ko mën a desarcel li fekk waxtaanu ma ceeg borom convocation bi bu nuppi journal bi nañu moom maître Khouraychi Ba ci la déggante ci ginnaaw bi ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko ne ko na desarcel maître Khouraychi Ba dellu section recherche desarcel commandant Mbeng jël convocation bi yóbbul Ousmane Sonko waa section recherche ñoom it jël desarce bi yóbbul siis bi l'observateur xibaar xibaar ñu ne na it kenn ko bokk ci parti Pastef ci Louga koo xam ne teg nañu ko loxo amit keneen ci farandoy Ousmane Sonko yi ci Ziguinchor ku ñu jàpp ba yóbbu kaso ndax tuumay yëf fitna suur soi nañu nit diine yi soloon seenu dal doon jéem dox tànki jàmm ci coowal mbës mi dox ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko avocat bu Adji Sarr di maître Aladji Diouf xëpp na ci cere ji suuf na nit yi diine yooyee nañu yem ci diine ji aji saar du wax ak kenn ku dul justice bi soxlawul médiation bëgg ko justice bi la doyloo te it moom la yaakaar bokkul ci ñiy ŋàññi justice réew mi keneen ku jëm ci justice tey ji les ko ne nañu moo di ndaw si moom Sweet Beauté di salon de massage ba yëfi xewoon mu di Ndeye Khady Ndiaye tey jii ci la ko justice bi convoqué ngir war ko auditionné wut na nag ñetti avocat mu di maître Ibrahima Mbeng maître Ousseynou Gaye ak maître Bassirou Balde les ko nañu waaye moom Ndeye Khady Ndiaye borom Sweet Beauté bu amuti dëgg kaso ba lay ndax procureur bi sàkk woon nañu mandat dépôt ko contra